xabaar yooyu nag ñu ngi ko amee ci euh, ñu ngi ko jëlee ci ruduut yi nga xam ni moom la taalibe yi imaam bi doon doon radd te te loolu ba ma ko dajalee parce que amu ci benn boo xam ne jar na tontu mais nag da koo jën koy jariñoo moo tax may wax ni toujours son bu ñu yóbbu ci groupe daal boo amee ay ruduut nañ ma ko yónnee parce que du jaageen yëpp lay tontu mais même bu ma tontuwul boo xam ne tontuwuma ko danaa ci amee njëriñ euh, léegi nag. Euh, ci biir gëstu boobu ma doon gëstu xam ngeen indi naa leen document ba nga xam ni moom la waa centre bi doon euh, doon def seen gëstu boobu centre bi PWPO euh, bu ngeen seetee ci waxu imam maanaam wax ji ci boppam dafa amul balaaxa ndax boo jëkk boo jëkkee dégg waxam ji li ngay gis mooy ab centre la nga dem ci biir waxam dégg ni tur wi kat benn waay la ndax dafa ni PWPO benn centre la boo xam bu nekk Washington di gëstu ci biir wax ji mu daal ni moom moomu moo ni kooku wax ni kon maanaam wax nañ ni ab centre ab centre la mais bi muy indi dama indi damiru maanaam fard aaqil la indi waaye alhamdulilah gëstu nañ ba xam ni fialan ab centre la bu tudd PWPO centre ba fexe nañ ba am document ba nga xam ni moom lañ doon gëstoo ci réewu jullit gi fexe nañ ba am document boobu eh, ma di leen yëgal ni maanaam vidéo bi ñàkk maandu gi ci nekk ilimaan dafa jël benn kayit képp daan ni kayit wii këyit daf ñoo jot kayit wii lañ jot mel na kayit woowu képp la waa gëstukat bi gëstu mais na loolu rek la léegi wa gars yi la gëstu lépp mu bàyyi ko fa ci senegal daal di yëkkati benn boobu képp léegi nag moo tax nag ñu jël document bi indil leen Alioune Badara nag nee na moom nañ ko génneel page yooyu nañ ko ko firil Alioune Badara moo bëgg di firil ko ci anglais defoon naa dégg na anglais léegi nag li ñuy wax mooy na ngeen seede ni ilimaan benn page boobu mu yëkkati di ko wane di wane pourcentage yi ci nekk mooy li gën a néew ci li nga xam ne moo nekk ci ci milef bi euh, mbokk yi bu ngeen xoolee ci milef bi xool leen page numéro 38 page numéro 38 waa centre bi dañ doon gëstu ci réewu julit réewu jullit xam nga moom mu la wax moom dafa ni dafa ni réew réewu Afrique yi la wax maintenant loolu moo ko tax a jóg te addina bi leen waxanteel gis nga bu ngeen demee ci page soixante onze boobu xoola gis nga mi ngi jëkk a tudd Europe Europe indi na ci ñeenti dëkk asi moom indina ci ay dëkk yu bare euh, Afrique Afrique du Sud Afrique maanaam euh, soowu jant ak yëpp indi na ko moom mu wan ñu ni affaire bi benn kayit la te kayit yi ci réewu jullit yi ci Afrique lay tax lay wax xoola parce bugg la tudd réewu naar yi loolu lépp daañ ci ñëw léegi nag gars yi seen gëstu yi ci wàll yëpp lañ gëstu xoola bu ngeen xoolee milef bi ngeen xool page trente huit xam nga lan lan lañ fa indi nee nañ ñoom dañ doon gëstu ci réewu jullit ñi ñaata ñoo ci seede ni yàllaay buur moom lañ war a jaamu Seydina Muhammad mooy yonentam maanaam daal ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah pourcentage bi ñaata la mu ni ba mu réew yi xam nga imam afrique la wax moom réewu àddina yi la wax ci ay jullit mu sénégal am na ci 99 pour cent loolu xool leen tableau bi ci euh, page 38 boo xoolee page numéro 40 page numéro 40 bu ngeen xoolee euh, da ngeen gis sénégal am 98 ci ñan ñi nga xam ni dañoo jàpp ni islam mooy diine ju wér ji mooy diine ju baax ji bam xoolee réew réewu jullit ñi quatre-vingt-dix-huit pour cent gëm nañ ni l'islam mooy réew diine ji nga xam mooy diine ji gën a baax kon deux pour cent képp mooy ñi nga xam ne si dak gëmuñu ko boo bu ngeen xoolee page quarante-trois page quarante-trois euh, waa centre bi indi nañ seeni recensement ñi nga xam ne ñooy julli julli yi juróom ñooy julli julli yi juróom te di ko def nañ ko nañ ko santaane di ko gëm ko di ko julli ba mu agsee ci Sénégal nee na kat Sénégal am nañ quatre-vingt-cinq pour cent yoo xam ne si ñoom dañuy julli normal dañ koy julli mais am na deux pour cent yoo xam ni deux pour cent ci Sénégal ñoo xam ni Euh, danañu gëm nañ ñu julli am na danañ julli mais duñ ko duñ julli régulièrement lii lépp ilimaan bàyyi ko fa boo ñëwee ci page cinquante deux ci mi la fii ma la yónnee page cinquante deux euh, mi ngi def gëstoom ci réewu jullit yi ñaata réew mu nekk ñaata ñëw fay génnee asaka ba mu accès Sénégal bu ngeen xoolee tableau bi Sénégal soixante douze pour cent dañuy génne asaka waa centre bi continuer seen gëstu ni réewu jullit yi ñaata ñoo ci woor Ramadan bañ defee seen gëstu ak seen laajte senegal am na ci quatre vingt pour cent dañuy woor Ramadan xoolal lépp ilimaan bàyyi ko fa parce que ab pour parce que nisba nisba bu baax la boo ñëwee ci page cinquante neuf xool leen ko baax page cinquante neuf ci milaf bi bi ma leen yónnee nii mu ànd ak son bi mi ngi ciy laaj dañuy laaj réewu jullit ñen ñoo ci gëm ni malaaka am na. réew mu ci nekk ba mu agsee ci Sénégal Sénégal nee nañ am na cinquante sept pour cent yoo xam ni gëm nañ ni malaaka am na mu ñëw ci ndax sawara am na wala amul bu ngeen xoolee page 63 da nga gis muy gëstu réewu jullit ñi ñen ñoo ci gëm ni sawara am na bi mu agsee ci Sénégal Sénégal am na quatre-vingt-dix pour cent gëm nañ ni sawara am na mais yii yëpp anamul tax mu bàyyi ko fa boo ñëwee ci page 62 waaw mbokk yi maa ngi jéglu parce que loolu mooy mooy yàq enregistrement bi sànq ba léegi sonnerie boobu mais coupé naa ko léegi boo ñëwee ci page 62 page 62 mi ngi ci laaj réewu jullit ñi ci àddina bi waxul Afrique xam nga ilimaan Afrique la wax réewu jullit ci àddina bi ñan ñoo ci gëm ni àjjana am na mu ni ba mu agsee ci Sénégal Sénégal quatre-vingt-dix-huit pour cent yi ci senegal gëm nañ ni àjjana am na muy muy xool réewu jullit ñi ñaata ñoo ci gëm ni li ñuy wax ñu ñuy tooñ ñi ñuy ay dëmm ñaata ñoo ko ci gëm ci réewu jullit ñi ba mu ci senegal senegal cinquante neuf pour cent yi gëm nañ ni maanaam loolu wax ñi ñuy tooñ am na bu ngeen xoolee ci mille page quatre vingt page numéro quatre vingt euh, waa centre bi def nañ seen gëstu ni réewu jullit yi réew mu ci ne ñaata ñoo gëm ni bu ñu feebaree dem ci sëriñ mu bindal leen saafara danañ wér wala ñaata ñoo mës dem ci sëriñ ñoo xam ne ñoo feebar dem ci seen bu ñu leen saafara ñu wér ñaata la ñooñu bañ defee seen pour pourcentage Sénégal am na ci soixante treize pour cent centre bi di gëstu ci réewu jullit ñi ba tey euh, ndax réew mu ci nekk ñaata ñoo ci mës a gis koo xam ni jinne da koo fadd da koo da sadd maanaam arab jàpp ko bam daanu ay mo ay maaman ñëw mocc ba jinne ji génn bañ laajtee Sénégal nee nañ gis euh, vingt huit pour cent yi daal ci Sénégal nee nañ loolu gis nañ ko vingt huit pour cent léegi nag xoolal nag mu yii yëpp mu bàyyi ko fi yaa ixwaan xoolal lii lépp imam bàyyi na ko fi moom dafa nag kayit wi ñu dikkal te cent soixante quatre pages xoolal lii lépp bàyyi na ko fi senegal am na quatre vingt dix huit pour cent ci ñu euh, quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñi ñu seede ni amul benn buur bu ñu war a jaam buur yàlla mooy yonent bi sallallahu am na quatre-vingt-dix-huit pour cent ci ñu gëm l'islam mooy dëgg am na quatre-vingt-cinq pour cent ci ñuy julli normal ak deux pour cent ci ñoo xam ne si seen julli seen julli régulièrul am na soixante-douze pour cent ci ñuy génne asaka am na quatre-vingt-dix pour cent ci ñuy woor am na cinquante-sept pour cent ci ñu gëm ni malaaka am na am na euh, 90 pour cent ci ñi gëm ni sawar am na am 98 pour cent ci ñi gëm ni àjjana am na am na 59 pour cent ci ñi gëm ni 50 euh, euh, ci gëm ni ñi tooñ am na 73 ci ñi nga xam si ñoo feebar dem ci sëriñ mu bindal leen saafara ñu wér am 28 pour cent ci ñoo xam ne si gis nañ ko jinne sadd euh, maaman ñëw faj ko ba jinne ja génn lii lépp am na ci milifa ilimaan daal di cay setti page mais yàllay taxu bam c'était pas Si soixante mu jox Sénégal liñ ko jox donte sukkandiku wuñ ci bu ngeen ko xolé bu page bu koy zoom mom la yoni wal ni. dama leen yoni milaf bi ni ak page 71. bu ko Tanzanie man ko jox ci bi sax mais mais parce que Tanzanie amna amna non 92% Cameroun am 72 pour cent Mali am 64 pour cent Congo am 63 pour cent Tchad am 47 Niger am 44 Sénégal am 42 moom lu mu wax nee na Sénégal 58 pour 58 pour cent ci sénégalais yi gëm nañ ni euh, rendil xërëm bi wala rendil rawxaan bi mën naa bijji njëriñ mën naa jañ léegi même 42 pour cent yooyu sax waru ko gëm léegi nag bu boobaa na Alioune Badara def micro territoire laaj wala wala ñii képp ku dégg audio bi fa nekk yow laajtel laajal ci Sénégal ñaata ñoo gëm ni ren di yóbbu ci xërëm ya day bijji njariñ day deñ lor ñaata ñoo ko ci gëm ndax da nga am 41 pour cent bi ci jullit ñi loolu laay doon laay wax ni amul ak mandute te man bimay wax li yépp seetlu ma ko man benn kayit gog rek laa doon wax parce que gëmon na ni affaire bi benn kayit la mais nak na ñëpp xam ni du benn kayit ab document baangi ni nañ ko tassaré ci àddina bi yépp li lépp nag iliman da ko fa bàyyi tudd ko lool lañuy wax ni amul ak mandute te mané limu jublu ci li euh ñi wax ni mom contrôle mag ñi téereem bi mu taalif téere bi kenn mënatu koo gisati nañ indi téere bi kenn mënatu koo gis kenn boo ko boo ko ñaanee kenn du la ko may boo ko bëggee jënd kenn du ko kenn kenn du la ko jaay wala bokk nañ ma weddi man de téere bi bëgg naa ko ñaari xaaj yëpp bëgg naa ko parce que liiroon naa ko buñ ma ko indilee ma génneel leen li nga xam ne si moom la ci tuumaal mag ñi yëpp weddi leen te ñoom ñi neen nañ Cheikh Oumar Fouti lañ d'accord tudd na ko je même gëmul Cheikh Oumar Fouti Cheikh Oumar mom la wara gëna gëm ci dabalion peew wi donte ab lañ bu ko defee ñun li li taxoon ñuy wax mooy nisba bi dina am lu ma leeralaat tamit gis nga alquran dafa ni wa ashhidu zaway adlin minkum yàlla nee bu ngeen di seede ci sëy wala ci gis weer wala ci passé nangeen ngeen seede ñaar ñu maadu minkum yéen jullit ñi mais kenn du ko xiyaas ci ku doon ku doon ku doon am na koo xam dafa ni buñ doon tey jii catholique bu fekkonte ni dañ ko doon dañ doon maye catholique comme dagan na yow nga dem takk catholique comme dagan na nga yow euh, yow jullit bi est ñom da nga leen di imposer ni leen da ngeen di am ñaari seede ñu maanu ñoo xam ay julit julit lañ déedéet l'islam l'islam dafa ni alquran dafa ni wal muhsanatu min alladhina utul kitab dagalal nañ ci yéen ngeen tek jigéen ji nga xam ne amuñu jëkkër ci waa ahlul kitab comme yàlla moo ñu sant pour ñu dem takki leen nag yabal nañ ñu fañ ñu koy maye ak nañ ñu koy maye mais ab julit julit boo xam ne si da ngay takk sa moroom jullit ñoom la yàlla di wax ni ashhidu na ngeen seedaloo ñaar ñu maandu ci yéen jullit ñi ña ko seede nag bu fekkente ni maanaam ñoom mashkukuna fii mashkukun fii aqiqa aqidatihim maanaam seen aqida wérul ñoom seen seede du wér ku sa aqida wérul sa seede du wér te ku sa seede wérul ku sa seede wérul munoo maye munoo maye munoo seede sëy moo ñi nga xam ne si seen aqida wérul ñooñu bu ñu mayee sey sëy ba du wér ñooñu bu ñu mayee sëy sëy ba du wér eh, eh, képp koo xam ne si nag jàppe woo ni ñooñu seede woon sëy yi jàppe leen ñu manqué aqida kooku yow maanaam say mbir leer na mais ki nga xam ne si moo jàppe ni ñooñu seen aqida wérul ki jàppe loolu mooy kon sëy yooyee ña ci juddu ay doomi jaalo lañ man day duma gëm loolu parce que man li ma jàpp mooy ñooña seen aqida wér na ñooña seen aqida wér na sëy yañ mayee wér na ña juddu duñu ay doomi jaalo man man Mouhamed Lamine Sall mais ña nga xam ne sii nag dañoo gëm ni ñooñu seen aqida wérul ñekko gëm bu fekkente ni ñooñu lañ wax moo am kon sëy yañ maye wérul ña ci juddu ay doomu njaaro lañ كمان داي غوما لولو مان ليما گم موي ньоญ سين عقيده ويرنا سيين ماني ماي ويرنا نياتي جودو اي دومي يون لاني لول نانتي باي خيل باخا باخا باخ امنا لو خامن نك موم لا كوي تيجي تي اضافه تي بير تونتي ديغنا جي كو خامن سي داف ما ريرون باسكو ا باما ديمي عربي سعودي واخنا لين ني تي مدينه واخون دما فا واخون ني حديث احاديث قبضه بن ويروتي بن ma bëgg leen a woo ci débat ma am benn kii bu ma bind foofu benn muzakira ma daal di bind foofu nii nag xadisu xabdi yi benn wéru ci pour bëgg ñu woote débat mais bañu ñu ba ñu wootee débat bi ba ñu demee waa kulli xadis dañ ñi dañ ñi waa kulli xadis lañ may boole ci jaami islamiye gars yi ba ñu préparé ni euh, sixième étage lañ ko lañ koy defee ca euh, hôtel Méridien bu ñu ajee ba pare keroog bañ ne alxames la def euh, débat bi àllarba ci guddi ci lañ ma yónnee ndaw ni bàyyi nañ débat bam am ñeenti at gannaaw gi am ñi yenn ci étudiants yi jóg ni ñoom dañuy tontu keroog waa ji ba mu defaree waxe muzakkir ba pare tuddi ko ar raddul mursi ila Mouhamed Amine Sall am na étudiants yoo xam bañ leen woowee dañoo bañ dañ ni kii ñëw fi daaneel leen ñemewu leen ko bàyyi ba mu dem ñetti at xaw ma ñeenti at ñeent soog a jóg di tontu étudiants yi bari dañoo euh, fekke wuñ ko. far nag muzakira ba man daf ma dooleel damaa defee ni euh, ki ko doon bind déggul la ma wax man man euh, muzakira ba daf maa dooleel gis nga adilla yi ma am ci ñàkk wiiru xabdu yëpp ci muzakira ba laa ko jëlee yëpp parce que am na ci euh, moom hadis yi yi gaa yi indi képp la indi nga xam ni muzakira ba tey jii Masek moom Masek Ndiaye maçon moo ko war a tontu wala Saliou Diagne wala maam Cheikh Camara am naa ñoo xam ne si maanaam euh, euh, dégg yi ñuy dégg may wax ci xadisu xabd rek mën naa tontu téere ba loola taxoon ma formé groupe daara yi mag ñi pour firi xadi pour firi téere ba képp taxoon ma formé daara yi mag ñi de mais ba ma commencé ñoom Aliou Badara ñëpp ni ma ni ma nag léegi xab xadisu xabd doy na nañ dem ci leneen mais groupe daare yi mag ñi firi téere boobu képp parce que téere ba ci boppam dafa ànd ak man léegi nag dégg naa boroom nee na dafa taalif téere bi radd ma ba pare ma bañ cee wuyu xëy na daf fee nekkul woon léegi nag euh, incha allah dégg naa muy wax ni bu ma amee jot man du ma xaar mu am jot man téere bi incha allahu dinaa ko firi donte du yàq njàngum ñoom Umar Sey ñoom Oustaz Alioune Badara moo Umar Sey ngeen dimbali ma rek du yàq seen njàng mais incha allah bëgg naa semaine bu nekk daal dinaa ci indi ñaar wala ñett yoo xam ne si eh, téere ba nga xam moo may radd nim ma dimbalee ngeen xam nga am ngeen ci firnde Ismaïl ibn Abi Uwais man xaw ma ni woon daif la te ci laa ko xamee te Ismaïl ibn Abi Uwais bokk na ci moom mooy sëriñu Buxaari ca Muzakkir ba laa xamee ni Ismaïl ibn Abi Uwais daif la gannaaw ba ma xamee ni moom mooy sëriñu Buxaari kon loolu incha allahu eh, danañ ci njaw بوكا في نيان يالا ماي نيو ديغ اك توب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ما نيا اوسا اني بدر قبل اك سد لو موم بولين ما تي اريتي لوتي باسكو يين يينا تخ با بوروم رد بي جابني من مي دا ما باغا تونتو دا ما باغا تونتو رد بي با تخ موني نينا ديفور نما تي رد te tontu tontu ma ci rudud ya man mako mom yep yep man lay dimbalé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh